ci wàllu àdduna dafa am benn bataaxal boo xam ne dañ ko tëgg ñu tuddee ko accord de Paris ndax bi ñu defee COP mooy ndaje bi nga xam ne àdduna bi yëpp ñoo ciy daje di waxtaanee wàllu climat dafa ma engagement yoo xam ni pays dañ ko jëloon ñu ne ñoom dañoo bëgg a jël ay disposition yoo xam ne tey dañuy réduire émission de gaz à de serre yi pour que changement climatique yi gën wàññeeku ci àdduna bi ñu xam nañ ne Sénégal réew moo xam ne la li ñuy polluer boo ko comparé ñeneen ñu bëriwul waaye malheureusement liñ ciy subir dafa bëri ndax an mu jot daanaka wala ñaan at jot ñu am ay inondation gis nga mbooya mi nu muy bëree daanaka sedd amatul géej gi di avancé waaye ci accord yooyu ñun dafa am téere boo xam ne moom lañ tuddee contribution déterminée au niveau national mooy ñun téere bi ñu tabax pour wane ne ñun ci àdduna bi ñun Sénégal suñu wàll ci xeex bi ñuy xeex changement climatique lii la waaye ci téere boobu dafa am pàcc boo xam ni dafa am solo pàcc bi lim ñu jàngal mooy dañoo war a xool ci àdduna bi réew yoo xam ne tey ñoom la ñuy polluer dafa bëri waaye bëgg nañoo jàppale réew yi nga xam ne li ñu polluer bëriwul waaye ñi ngi développé ay initiative yoo xam ne dina am jeexital ci wàllu climat ñu jël Sénégal ak Suisse ñu signé benn protocole boo xam ne daaw léegi mu mat at bañ ko bataaxalee waaye protocole bi li mu gën a indi mooy li ñuy wax l'article six mooy li ñuy wax ci marché carbone Suisse ne ñoom am nañ ay mbootaay yoo xam ne lu ci mel ni CLIC bi nga xam ne tey moo fi ñëw ñoom gouvernement suisse dañu leen accompagner ñu ne dem leen ci réew yi nga xam ne tey ñu ngi fay développer ay stratégie nañ leen jël accompagner leen Sénégal nag yàlla dogal na ne même avant lii di am ñun suñu njiitu réew dafa teg Sénégal ci raay woo xam ne dañu am stratégie développement sobre en carbone irréversible ndax lim njëkk a def mooy indi ay centrales solaires pour ñu am énergie renouvelable bi ci tegu mooy ci wàllu transport xam nañ ne transport li muy polluer dafa bëri mu ne dañu renouveler parc automobile waaye parallèlement nañ réaliser ay projets yoo xam ne am impact la ci wàllu environnement muy BRT tey gis nga bis yi bu paree tey lu fukki junniy nit wala ñaar fukki junniy nit daan jël seen oto pour liggéey si mën nañ koo gaaree jël bis yi ñëw loolu am na jeexital tey TER bi nga xam ne tey moom ñun ñu ngi koy dund xam nañ ne TER bi am na impact bu baax a baax a baax a baax ci bi ñuy xeex émission de gaz à effet ndax mbir moo xam ne la jumtukaay boo xam ne la tey lu tolloog cent quinze mille personnes mën nañ ci dem di nekk par bés imagine cent quinze mille personnes yooyu bu doon jël oto li ñuy dégager ci échappement yëpp loolu dañ koy rafetlu tey ñaan yàlla mu yaatu comme ni mu ko bëggee ba dem ba jam ñaajo pourquoi pas ba Mbour wala pourquoi pas ba Thiès te loolu day impacté bi ci des mooy tey programme national biogaz gis nañ ne àll bi mat la ñuy toggee te ku wax matt wax garab te mënoo am mat te goroo garab donc pour sauver suñu àll bi ni ñi développer stratégie boobu beneen bi ci tegu mooy wàll mbalit mi mu ICG nga xam ne tey ñi ngi def liggéey bu am solo solo solo ci réew mi waaye mbalit mi ni ñu koy waxee day jóge ci kër dem ci dépôt léegi bu yegsee ci dépôt ba war ñoo développer ay stratégie yoo xam ne def ay infrastructures yoo xam ni dinañ ko mën a transformer recycler ko ko ba mu dellu si waat ci askan wi sous forme d' énergie wala sous forme d' engrais wala sous forme beneen engrais ñu ànd ceeg nag fondation CLIC bi nga xam ne tey ñoom ñoo jógee Suisse ñoo jàppale suñu te tey ñuy lancer site bi pour profiter ci occasion bi nag lancer appel secteur privé lancer appel société civile lancer appel waa presse bi ne lii voilà une opportunité pour accompagner idée de projet wala projet yi nga xam ne tey ñu ngi développé jëm ci wàññi émission de gaz à effet donc di leen gërëm di leen sant wasalaam